loolu bu ñu leen ko defee prochaine fois incha allah bu ñu koy defaat dinañ ko defee saa yu gën a yàgg yi. te dañuy def dafay gën a firndeel seen taxawaay ci projet bi dafay firndeel seen engagement ci réew mi loolu kon ñu leen di sant bu baax leen ci gërëm bu loolu jàllee rek ñu ngi jiital nuyoo bi ziar bi maanaam la représentation waaye nga di jàllale département Mbacké suñu ko tuddee mën nañu gis nañ boole ñi nga xam ne ñoom ci santé tey nag dafa nekk jour boo xam ne journée bu spécial ci département bi ñu waroon a lancé euh, cérémonie lancement des candidats man xam ne candidat yi fi nekk ñi fi nekk ñëpp kenn ku ci nekk rek mérité nga pour nekk ci liste bi waaye nag dañuy jaajëfal bu ñuy def candidat à la candidature ñi nga xam ne ñëwoon nañ pour am yéene nekk député wala représenté seen bëgg bi ñu leen xoolee ñu ngi tolloon ci cent vingt candidats. xool ne finalement dix personnes lañ ci tànn cinq titulaires cinq suppléants ñoom ñëpp li ñuy bëri bëri mais des causes ci kaas des causes ci xund ñoom ñëpp ñoo ànd rafetlu li parti bi def kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm loolu tamit dafay gën a firndeel ne parce que seen engagement lañ bëgg di wane saa su nekk moo waroon kenn gis ne war naa taw jéem a représenté peuple ci benn réew mi waaye nag di leen waxal ne ah. pentu ndaw réew mi bu ngeen dem législative bi mooy suñu dernier chance am nañ yeneen législative ak législative yu bëree bëree bëri bëri kon jàpp naa ne kenn ku si nekk bis mën na ñëw nga teewal sa bopp incha allah rabbi ah ñun nag dañu sant département bu Mbacké ndax huit ans yi ñu jiite gis nañ liggéey bu extraordinaire bi nga xam ne yéen a koy def rawatina yéen les coordonnateurs communaux nga xam ne yéen a ngi liggéey ci DG Touba nekkul si Kayal nekkul si Mbour Kayal si Dala wala Daaru Nayim parce que li ko waral mooy population yi ñoo xaw am tuuti wuute kon leen effort bi ngay def ngir projet bi gën faa àgg ngir projet bi gën faa taxaw ñu ngi leen siy sant bu baax di leen gërëm je pense que parti bi cinq titulaires yi mu daan ak cinq suppléants yi incha allah dinañ représenté département bi dignement bu ñu demee si wéru ndaw yooyu incha allah te loolu nag pour ñu mën koo am mooy faaw gën a continuer liggéey bii ñuy def ba incha allah le 17 bii le 17 novembre bu ko àggee si jàmm parti yi ni faral si élection présidentielle yi mu nekk bàcc ci ko raw te am nañ yaakaar ndax démb nit ñi ñëpp ñu ngi jugee si stade Arena gis ko président Ousmane Sonko taxawaay bi mu taxaw Sénégalais yi ñu ko si muy boo xamante ni kenn mosu ko gis yaakaar naa ne kon loolu la firndeel na ne incha allah le 17 victoire bi leer kon loolu ñu ngi sant population Mbacké seen taxawaay. gis nañ seen engagement mais lépp lu ngeen defoon démb wala bërki démb tey lañ ñu gën a soxla engagement bi nañ ko yokk ndax am na ay saay saay ak taxawal yu nekk si terrain bi di jéem a jàppale président Ousmane Sonko ak Diomaye loolu nag foog naa ne du ñu leen ko may kon incha allah bu ñu ubbee campagne bi nañ wax ne département bi ñoo moom département bi ñu koy wanee war na ñoo ko moom dañu war a mobilisation boo xam ne ñeneen ñi danañ mos a bu baax a ndax bi ñu nekk si opposition bi opposé di am élection présidentielle Pastef rek nga daan gis ñu yor caravane boo xam ne dana ëpp téeméeri oto rawatina bi ñu nekkee fii si pouvoir euh, ànd euh, jàmbaari Touba di jàmbaari département si Cheikh Thioro yaakaar naa ne incha allah li ñu defoon bay jàll tey dana def lu ko gën a raw jàpp nañu daal tànn bi ñu gars yi tànn département bi du si am lu ndax ñaar ñi ñu tànnoon muy soxna Fatou Mbodj ak Cheikh Thioro Mbacké ñoom ñëpp gis nañ taxawaay bi ñu amee woon ca assemblée naa ne di Diomaye Diaw kii di Amis Khady Sow kii di Soxna Awa Seck kii di Serigne xam ne seen i doom ñoo ko taxaw a seen i conscience seen confiance projet bi ndax de li ko Ousmane di waxee ñun de ñaanuñu yàlla taxaw ko mu pour suñu bopp dañoo ñaan yàlla bu fa taxawee taxawal fa askan comité bi mais je pense gis nañ ni mu demee du fi mën a nekk mais incha allah après danañ ko jàppaat si beneen jamono te mu ñu ko jàppee danañ ko a yëgle incha allah ñu waajal ko. man euh, kon euh, liñ siy wax daal man a yem ndax kontaan nañ am nañ lu ñu def euh, xam lu seet sur mobilisation bi te jàpp naa ne lii day continuer bu continuer rek incha allah dinañ mën a am 95 pour cent au niveau départemental saa bu nekk bu ko duggee day fexe ñu marchement te loolu li ñu koy mën a def mooy ñu gën a takkoo nekk benn àcc doo dóorandoo.